mbir mi dox diggante liggéeykat yu Dakarnave ak nguuru Sénégal mu mel ni pënd ba di li ñu nemmeeku si ab toogaanu ñaxtu bu ñoom liggéeykat yu boobee société amal si alxamis gi contrat de concession bi dox seen digg nguuru Sénégal la ñuy joytu depuis lors gis nañ ni amul benn jéego boo xam ni def na ko dalal xelu liggéeykat yi liggéey fii nii parce que ñu si bëri am nañu ay problème parce que xamuñu seen avenir fan lay jëm xamuñu au delà au de juin 2024 ndax ñoom daañu continuer di liggéey wala déet. loolu moo tax tey ñu woo ñëpp pour ñu mën a toog waxtaan ñu ndax état bi mën ñu dégg ndax wax dëgg yalla bo ba léegi ñu ngi yëngatu té bo ba léegi dañuy taxaw du ñu seetaan te ba léegi xamaguñu fu ñuy tek suñu tank lepp lo xam ne ko doon négocier pour que travers Dakarnave yi gis sel bop mu jëm ci walum location mu jëm ci walum kër mu jëm ci walum salaire lepp dafa bloqué lu tax lan mako bloqué mooy que à chaque fois bo jàkkaarloo sa direction ni ko man kat do bëggoon nga defal ma li defal ma li mun ma mënu ma ko def parce que xaw ma ndax man naa fi toog wala déet xaw ma luy am suba. liggéey bi ni muy demee metti na mais xaalis bi dafa néew xaalis bi dafa néew donte le nag payor gi du tardé payor gi musul tardé mais xaalis bi néew na par rapport ak li ñuy liggéey. donc loolu dafa nekk benn blocage su suñuy négociation syndicale te loolu baaxul si kër te day indi ay njàqare si si ci liggéeykat yi. mu di lenn si ay jafe-jafe yoo xam ne si ñu ngi koy dund si këru liggéeyukaay boobee di dakaar Dakarnave te jaaxal leen lool. waral ñu sakku monsieur le premier ministre Amadou Ba mu ñëw ñu vraiment walu ba ñu gis suñu bop vraiment ci fini liguey donc di talal loxo aussi son excellence monsieur le président de la république mais euh, son excellence Macky Sall mu tamit mu ñu koy ñaan mu sëgg si dossier Dakarnave bii nii su ko défé ñëpp ñu fi liguey sel xel dal. ngir dalal sen xel. mbootaay syndicat bi ñu duppee UNSAS ñëwoon ngir ànd ak ñoom si li ñuy ñaxtu. entreprise bi toll na foo xam ni contrat bi mi ngi jeex war na dakk bi nga xam ni moo lié woon état du Sénégal ak LISNAV ñu koy wax Dakar Nav depuis 1999 contrat moo nga xam ni signé woon nañ ko 99 certainement tey jii mënatul nekk réalité kon war nañu changer maanaam mode bi terme yi nga xam ni moom la ñu woon signé woon contrat boobu liggéeykat yi am ci part. manam ñu bok ci biir capital social bi am ay présence ci biir conseil d'administration Du di que fu ñuy nas ak du no bi ci top nak moy am nañu ben projet d'accord collectif d'établissement bo xamni ne teg ko ci table bi gouvernement a lañuy xaar pour mu concrétiser conclure le contrat renouvellement du contrat de concession avec Dakar, Nav ñu entamer négociation yi pour que l'Union ñuy wax li ñuy affaire problème logement L'Union ñuy jàmbat ci affaire payoor ay classification à d'autres modes de de de rémunération am ay indemnité un euh, régime euh, indemnitaire valable adéquat adapté aux réalités actuelles Devenant naa ni loolu mooy Ligue liggéeykat yi la soxla une sas d'olé, une sas d'olé.